وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين رب اسرع لي صدري ويسر لي أمري واعلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقبل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 وشر الشهر وشر الخلق إنزهم مع جنهم وسواد اسم الله وكجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب لن يو سيارة لن تبس بمكبي نيان سنبو سبحان وتعالى من خمنا نموني في دجلة من نقول نسنو جامو جيغل نسنو باكار ما نمو جرفت ci baaxu sëriñ bi gannaaw nuyoo beeg siyaare bi ñu ñëwaat ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba wala nga leen mbindum sëriñ bi ñu ngi woon ci téere bi nga xam ne ne moo tudd tasawudu subaan di yóbbulu waxambaane yi waaye ñu ngi woon ci xaaj bu mujj bi nga xam ne ne moom la dajagleel tasawuf ndax ñetti xaaj la ko séddale mooy al iman al islaam al ihsaan wala nga ne tawxid fiq tasawuf ñu ci xaaj bu mujj bi nga xam ne nag mooy tasawuf tasawufu nag mooy taxa jambi xam boromam ni ko waxoon ci ginaaw tasawuf mooy tax jam xam boromam tasawuf mooy tax jam bi sell tasawuf mooy tax jam bi wan lépp lu bokkut ak yàlla jublu yàllay kese tasawuf mooy tax jam bi dañ ak mbooleem jikko yu ñaaw yi jikko yu rafet rek ba am ngërëmal boromam kon nag ñu ngi ci xaaju ñetteel bi nga xam ne ne moom la ñetti xaaj yooyu la tënki téere bi xaaju ñetteel bi nag moom la jagleel tasawuf te mooy lépp li jàmm bi sóobu boroomam li tax mu xam boroomam ñu ñëw toll woon ci bunt bi nga xam ne moom lay jàngalee bunt bi ñu mujjee woon a nekk moo ci la doon waxee mbirum yeesal sunna na yonent bi sallallahu alayhi wa waaye soññe ci xam-xam bu baax a baax ci niñ war a jàngee niñ war a fonkee xam-xam ak la ci aju ci bunt boobu dañ tolloon dañuy sof rek ci li nga xam ne ne fi lañ toll woon ci bunt bi nga xam ne ne daanaka nit ñi ëpp ci xam-xam la doon soññee niñ war a jàngee xam-xam ak niñ ko war a jubloo ak kii sàkku xam-xam bu demee ba di ko sàkku yan teggin la war a amee ba amé lam bëgg ci xam-xam ba mo tax ñi ngi tollu won ci ibi wax naan wa suma ata min al khala'i ba'da khada'ihi maa ja'i summa arada al lil fal araada almassa lilkitaabi falyaxsil alyadayni باستحباب أو يتوضأ ثم يقز الكتاب مبجلا مغترما يهوي صوابا ñu ngi toll woon foofu mooy fi muy waxee ne kii sàkku xam-xam bu duggee ci wana wi sax bu defee li muy def ba génnaat nga xam ne ne ay loxoom xam ne ne laa na sobes te bu génnee nar naa jël ab téere dañoo sopp mu dem raxasaat loxo yi laxas gu yees doo ko laal téere bi ngir war warmaale ko ngir màggale ko ko su ko mënee sax na jàpp moo gën ndax bi mu jugee ci wana wi ay loxoom laal na sobe xëy na sax bi mu génne takku sobe waaye laal na ko kon su génnee bëgg a jëlaatu téere wala alluwa wala këyit na dem raxasaat loxo ya doog laal téere bi mu bëgg laal walla su ko mënee sax mu jàpp moo ca gën waaye dañ koy sopp rek ci ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam nag la wax ndax bu doon koo xam ne sa kuur xam-xam ni ko yow mu jek jek bëgg laal téréb alxuraan nii rek te jàpp ko doko sañ waye mom mi dañ koy sopp ci mom mu def ko bu ko mëne jàpp mo gën ngir magalé ko xam-xam bi waye ngir warmaale ko xam-xam bi ndax mo man caa am tiyaba mu dëkk ca waxudda minha kawnuhu muqtariman li sayqihi wa qadiman muasiman إسخيل إن نفح من تعلم niita بإجلال ijlaali العلماء neena na ba tey bokk na ci teggini yi kiy sàkk xam-xam muy warmaal ak màggal ki koy jàngal xam-xam bi ak borom xam-xam yépp rek mu leen di màggal di leen warmaal ndax dañ ne bokk na ci njariñal xam-xam maam li tax njariñal xam-xam kem ni nga màggalee borom xam-xam maam comme ni nga màggalee borom xam-xam yi noonu sa njariñal xam-xam di toll kon nag da màggal boroom xam-xam yi ki la koy jàngal di leen wormaal ndax kam ñi ngay sa xam-xam noonu ni ngi leen màggale rek ci loolu la aju mu teg ci wa min suruti talabil ilmi yuaddu sittatu asyaai tuwaddi li rasadi nee na ba tey bokk na ci am na juróom juróom benn yoo xam ne ne bokk na ci sarti ki jàng xam-xam juróom benn yëf yu mu war a melawoo ndax mu mën a am li muy wut ndax mu mën a am ak jub maa am na juróom benn yëf yoo xam ne ne kii sàkku xam war na koo melawoo maanaam juróom benn yoo xam ne daal kii sa kii sàttu xam kii xam-xam war naa ne ci moom mu wàññi ko moo tax mu ne awaluha الصبر على الجوه الوسط كأسد نيو جيروم بن سارت بي تي نك موي كي زاكو خام خام ورنا نيمي اب خيف مانام مو مانا موني اب خيف خيف بو دوغ دوم مو مان كو موني كوم نيكو غاي نه مانا موني غاي نه دا فا مانا موني لول اب خيف كي زاكو خام خام ورنا مانا مانا موني اب خيف لول بو مانا غاي نه واي نك خيف بو دوغ دوم تا موي بالا مو ليك xiif te bu dee lekk balaa regg daal di bàyyi nga xam ne ne waxuñu xiif boo xam ne ne day metti ba di ko feebarloo wala mu di ko taayalloo waaye day digg doomu rek ba mel ne gaynde woowu wenn meloo la si wasaani junnitun xalatan itaalatu julusi fi taallumi ci nasib bimtixaa irdal muallim ñaarel bi nga xamne ne ci sako xam-xam war na koo meloo mu yagg ci mi sako xam-xam ci mi sako xam-xam bu mu yàkkamti gaaw jàng li mi jàng rek daal di dem waye na fa xaw fa def ab dir ngir sako wala ngeureumal ki way jangal waye man fa diglu wat lim fa jànge waye gën fa yokke xam-xam ndax bu fa yagge rek dana fa déggé lo xam ne sax jangugo ko ndax xëy na la koy waral mooy keneen la ñu jàngal mu dégg ko wala lu mu xamut te la muy jàng mu laajaat ko wala ñu jàllale fa leneen mu xam ko moo tax jàgg jàgg gi fi bañ a ci am na njariñ lool lool te sàkk wala ngërëmal borom xam-xam ka koy jàngal salisuha xirsu salisuha xirsun ala talabihi ka misli ka misli ansil kalbi fi matlabihi nee na bi ko ñetteel ci melo yi nga xam ne ne kii jàng war na koo amee kii sàkku xam-xam mooy mu xër lool ci xam-xam bi nga xam ne moom lay sàkku ni ci ni xaj di xëree ca la dàq bëgg koo jàpp mu xër lool ci xam bi bañ a gaaw a doylu lu mu am rek ci xam-xam jàpp ne amagul dara day doo day doog a tàmbali lu mu am rek jàpp ne amagul dara day doog a tàmbali xër ci lool ba mel ne xaj bi dàq lami mi sàkku na mu cay saaku ki sàkku xam-xam xir xiri ca noonu raabixuha ilmun ka misli xir bi ko ñeenteel nag nee na mooy kuy sàkku xam-xam na lawet lool ba mel ni am muus ni muus lawetee jikkoy muus na ko amee ndax muus boo xoolee dafa lewet lool ba moo ko may mu mën a dëkk ak nit ñi ñu di ko fanaanoo wala ñu di ko tibbal lekk te amul benn daanaka du la amal ben njariñ waye lolou ak lewetam moko ko may kon ki sàkku xam-xam na amel melo musu waw na lewet neex deret ba melni am mus ndax sax naqari deret mom àndut ak sàkku xam-xam kon nak na lewet ba mel ni am ni muus lawetee xaamisuha idaamatu li sabri hanin nisaa as-sarifat hanin nisaa as-sarifat himmi kasabre xinsiirin sirin bila taxamumi diko ko juróomeel nag nee na mooy yow xam-xam nga mana muñ banexi jigeni manam bul yakamte ne na gaw jang rek dem tak ci soxna lolou boko defé lu bare bari man na raw bul ne na gaw dag sama jangami wala nga na gaw gaaw ndax ma mana am soxna dedet yow dal sakul xam-xam rek xam ne ne lu yàgg yàggam jigéen ñi duñu jeex waaye bul wax na mukk naa gaaw bàyyi njàng mi wala mu bàyyi xam-xam bi ndax ma mën a dem ami soxna kon lépp lu jëm ci bànneexu jigéen nee na nga mën kaa muñ ni ko mbaam xuux mën a muñe nga muñe ko noonu saadi soha sabrun ala zullin abadan sabra ximeerin fatlu bisi ar rasada bi ko juróom benn nag nee na mooy kii sàkku xam-xam na mën a muñ lool toroxte ni mbaam mën a muñee toroxte mbaam loo ko jox ci ak lekk mën na koo lekk waaye loolu fekku ci fas ba tey it mbaam ku mën a muñ ma toroxte la kon yow mi sàkku xam-xam jikkoy mbaam jooju nga mën koo amee te mooy bul ne man lii laa war a rekk wala lii laa war a sol wala fii laa war a tëdd wala nii lañ may def nii lañ may def déedéet waaye da ngay xam ne yaa yaay wut yaay sàkku ji nga farlu ci li ngay wut bu baax a baax rek mën a muñ bépp toroxte wala bépp doyadal boo ci jànkoo teel mën a muñ lool ba ni mën a mbaam mën a muñee toroxte nga mën koo muñee ci loo gis rek baax na yow rek nga lay itteel rek mooy sàkku xam-xam bi xam ne ne moo la fi indi mu ne ni ma mën a muñee ak toroxte daal yow mën na kaa ah muñee toroxte ci sàkku gi ngay sàkku xam-xam moo tax mu ne yii mu la wax yépp sàkkoo leen ko ci ndax ngeen ame ci ci yii nii sàkkoo leen ko ci ndax ngeen am ci xam-xam bu am jariñ te mooy juróom-benn yii mu la wax kon day yemale bunt boobu foofu lay yamale bunt bi nga xam ne ne ci la doon waxee ci mbirum xam-xam ak la ca aju ca kay sàkku xam-xam muy bëgg a dugaat ci beneen bunt moo tax ne fasun fil xaddi xalaa jihaadi nafsi mu ne dog bi moom li fi indi mooy ñaaxe ci jihaar ak bakkan maanaam li muy indi fii mooy ñaaxe ci jihaar ak bakkan te mooy sa bakkan nga di ko teg ci ak dëgg ak lu lu yàlla gërëm te bañ koo bàyyi ci li ko neex moo tax mu ne dog bi li dafiy ñaaxee ci nit ki mën a jihaar ak bakkanam ci teg ko ci siraata ma bañ ko bàyyi ci lu ko neex moo tax mu ne ruumu jihaadal nafsi yaa subbaanu falakumoo xadan bihi aljinaanu mu ne ni ngeen jihaad ak seen bakkan yi te mooy sa bakkan di ko teg ci ak dëgg ak lu yàlla gërëm te bañ ko bàyyi ci lu ko neex ndax nee na jihaar ak bakkan googu mooy teg ko ci dëgg ak lu yàlla gërëm nee loolu ndax ngeen amee ci àjjana kon nag na ngeen jihaar ak seen i bakkan ndax bu ëllëgee ngeen mën cee amee àjjana moo tax mu ne man lam yakun li nafsihi mujahidan fa innahu laa yaxtahi fawaidan nee na ku jihaatudug sa bakkan mooy teg ko ci ak dëgg ak lu yàlla garam nee bu ëllëgee doo jariñu ku jihaatudug bakkanam daal teg ko ci dëgg ak lu yàlla gërëm bu du jariñu mooy mu ne xaddul iradati bi xawli saadati tarkul muridi ma alayhi al aada nee na dëgg-dëgg ab taaliba bu nam ma jëm ci yàlla nee na day bàyyi lépp loo xam ne aadala la mooy képp ku nam jëm ci yàlla mooy comme ni ko waxawoon ci ginnaaw rek day bàyyi lépp loo xam ne aada la ju niti kese yi di ko aada woo te mooy nitu kese nim aada woo mooy jaxasoo nit ñi jaxasoo boo xam ne xëy na mën naa bañ am njariñ wala lim aada woo ci ne ko bu xëyee suba dana ndékki donte ko xibul wala bu añee dana añ bu añ jote dana añ bu reer jote it dana reer bu tëdd jote dana tëdd bu gementu bu gementu tuwul loolu lépp ay aada la yoo xam ne nit kese ñoo koy dund mais dëgg taale bu nama jëm ci yalla nak aada yoy da koy bayyi te moy nim koy defé moy lenn lu ne day bayyi ba itti wo ko bu ko itti wo facc aajo daal di jallat nii ko du jaxaso nit ñi jaxaso bo xamne amul ndariñ da koy niwal lool wala mu bàyyi ko lekk tamit bala mu koo def day xiif te balaa bala mu ko def day xiif waaye du du ko du ko tàmmoo comme ni ko nit ñi sàkkalee ay waxtu yooyu yëpp rek faj lor la tey def waaye du doxal aada yooyu waaw bu dee wut boroomam melo woowu lay amee léegi nag su demee ba nga xam ne ne am na boroomam bi mu doon wut mooy àgg na ci yàlla mën nay def yii yëpp aada yi nit ñi daan defee ak yëpp di jaxasoo di ko defee ni ko nit ñi defee te du ko lor du ko yàqal dara waaye fii muy àgg moom yii nii na koy moytu bu dee ba àgg nag ci yàlla kon lii du ko wàññeeti dara dara moo tax ma ne su ma rujjoo ilal muqtaadi xabla wusuuli kal irtaadi nee na nag su sóoboo yoonu yàlla bàyyi aada yi nga xam ne moom la nit kese yi dundu ndax moom dafa sóobu yoonu yàlla dem ba ci dem ba ci yoonu nag mu ne ah man ko damay dëpp delluwaat ci aada yi mooy delluwaat ci li nit kese yi dund nee na loolu ñu baax ñi dañ ko yemaleeg murtad moom murtad murtad nag boo ko xoolee mooy ku duggoon ci lislaam wax lu ko ci génnee wala mu def lu ko ca génne waaye nit ki sóobu yoonu yàlla bàyyi aada yépp ba dem ba ci yoonu bëgg a dëppaat bëgg delluwaat ci aada yi ne dañ ko yemaleeg ku murtad nit ñu nit ñu baax ñi waaye euh, na na na muñ rek ba àgg bu àggee ci yàlla mën naa dellu ci yëpp te du ko wàññi dara dara waaye fii muy am lu wur rek nay meetu yooyu wa man yadum ala jihaadi nafsi fa fayus xindeex loolu si nee na ku sax ci jihaad rek ba kanam te mooy di ko teg ci li lii dëgg ak li neex yàlla xëy na dana yàgg ndax li dëkk li sa dund toll rek lay toll dana metti dana yàgg ndax li sa dund tool rek lay toll waaye na xam na de bu faatoo ba dugg ci bàmmeelam rek lay texe ba faw faw faw jihaad ak jihaad ak bakkan lu yàgg lay doon ndax lu metti lay doon ndax sa bakkan li mu lay xëcc rek li ëpp rek lu lay lor lay lu lay lor lay doon ak lu neex ak lu xëy na lu yàlla gërëmu léegi nag nga di ko jële ji loolu dana yàgg dana metti ndax lu sa dund toll lay toll waaye nag soo génnee àdduna ba dugg ci bàmmeel rek da xam ne ne li nga doon def lépp bànneex la te nee na texe ak mbégte ngay gis ba faaw faaw wala ma ne suma isa ujibtumu ilal jihaadi fa qaddimoo daalal fa qaddimoo daalal min al ahadi nee na nag jihaad ji ma la wax boo ci bëggee jublu na nga xam ne am na ñeent yoo xam ne moom nga njëkk a lool ba pare ñeent yi ñoom nga njëkk a jàkkaar lool ba pare dooga ñeent yi ngay jàkkaar lool boo bëggee jihaad rek sa bakkan moo tax mu ne wa huwa la amriya al jihaadu al akbaru kama bihi anhum atana al xabaru sëñ bi ne giñ naa yàlla ne jihaad ak bakkan mooy ji gën a màgg te sax nee na wax nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas naa wax ne jihaad ak bakkan mooy jihaad ji gën a màgg te nee booba daa jóge woon ci xare xare jeesi mu jóge ci xare jeesi daan na leen de daan ne ak bakkan mooy jihaad ji gën a màgg jihaad ak bakkan mooy ji gën a màgg ndax jihaad ak jeesi moom li ci ëpp du yàgg te loo li ci jullit bi mën a jëlee Eh, texe lay doon ndax soo xeexee yëfër bi rey yëfër bi am martabay ngërëmal yàlla dugg àjjana bu la yëfër bi reyee tamit ba tey nga am ngërëmal yàlla dugg àjjana kon foofu eh, pertement amu fi te it li ci ëpp du yàgg jihaar ak bakkan nag moom day yàgg ndax ñu sa dund toll lay toll te li te sax li ciy tane mooy bakkan bi bañ laa gañe waaye bu la bakkan bi gañee boo may tuut safara la la jëmee bu la ngërëma yërmaane yàlla dabaatalu kon moom jihaar ak bakkan faaw yaa koy gañe mooy faw du la diri waaye boo boo ko diree bu la diree rek boo moytu safara la la jëmee bu la yàlla dabaatalu te it dana yàgg ndax lu sa dund tool lay tool moo tax jihaar ak bakkan mooy jihaar ji gën a mag gën a rëy léegi nag mu wax la ñetti noon yi nga xam ne koy jihaar ak sa bakkan moom ngay jàkkaarloo moo tax mu ne nafsan wa dunyan <coughs> su ma saytaana laxinan xewan fa kullu nee jihar ak ba ñeent noonu yooyu benn bi mooy sabakan bi sabakan bi ak lan aduna si ngay dund muy ñaar ak lan saytaane mi nga xam ne ne liggéeyam bépp du lenn lu may dëpp nit ki yàqal ko bam jëm ci kërëb safaan ba bi ko ñeental mooy lan ak sa ba sa bànneexu bakkan bi ak sa ak sa ak sa ak sa bànneex bi ñeent noonu nee na ku jihaar ak sa bakkan moom nga jiital muy saytaane muy sa bakkan bi muy àdduna muy saytaane moy banex mu ne kenn gu ci kenn ko ne ci ñom nak non la bo xamne noyut maam du non bo xamne ne adversaire bu mat adversaire la noyul mukk legi nak mu wax la kenn ku ne na ngay def ba mucc ci mom waye kenn ku ne da nga xamne man la mën song ba daane la motax mu ne li kullin sujunun wasilaun minhum fa adkhulu fa adkhulu wa kasiru fa taslamu sëñ bi ne ñent noni kenn ku ne amna kasso boko boo tejj ba du génn lor la waaye na nga xamee moom it am na ngànnaay loo xam ne leen na la kaa songe ba daaneel la kon nag nee na dugal leen dangeen leen dugal ci biir kaso yooyee dammute caabi ja ndax ngeen mën a mucc wax na la ne la ñeent noonu yi kenn ko ne am na kaso boo ko mën a tëj ba du la génn lor la waaye am na nga waaye boo ko tëjut am na ngànnaay lu la mën a songe ba daaneel la léegi dugal leen ca kaso ya nee na dammute caabi ja mu wax la kaso ya ak ngànnaay yim lay soññe moo tax mu ne bi nafsi wa fan nafsu bi jooxi at tawil tusjana wa ma laha xaydun si waax yu lan mu ne bakkan bi fi nga ko mën a tëj kasa bi nga ko mën a tëj ba du génn euh, songu la mooy ab xiif xiif bu diggu doomu xiif boo xam ne du àgg ci di la feebarloo wala mu la taayaloo loolu boo ko defee rek tëj nga sa bakkan kasa boo xam ne du génn daaneel la loolu nag lu ñu mën a euh, gis la bu baax a baax ci Euh, weeru koor ni muy demee ci nit ñi ak bu weeru koor du ko bokk loolu dara waralu ko te mooy xiif bi ñuy xiif rek kon bakkan fu ñu mën a tëj ci xiif nee na sax amul benn jéng beneen jéng boo ko mën a jéngaat bu dul loolu mooy xiifal ko bu diggu doomu boobu mooy kasa bi nga ko mën a tëj léegi mu wax la ngànnaay li mu la mën a songe moom bakkan mu ne amma silaahuha allasi xadd tamnahu bihi muridan min hudan fa sibon nee na ngànnaay li mu la mën a songee boo ko tëjut mooy taxoo regg foo toolu rek di regg foo toll rek di regg doo xiif benn yoon jox jox nga sa ngànnaay arme boo xam ne ne moom la la mën a daaneele moom na la mën a daanelee kon nag bakkan wax na la fi nga ko mën a dugal ba du la gaañ waaye moom it wax na la ne arme bi mu la mën a songee ba daaneel la mu dem ci àdduna mu ne wa wa sijinu dunia xuslatun bi ilmin wa xamali li wàcc muftil fahmi nee na bi nga xam ne moom ngay dund dund nag moom kasa bi nga ko mën a tëj ba du la lor ba doo ci lab kaso bi nga ko mën a tëj nee na mooy beru beru bañ a jaxasoog beru bañ a jaxasoog euh, nit ñi tey boole kooku xam di jëfe la nga xam bala ngay beru daal di jëfe la nga xam bala ngay beru daal di bañ a jaxasoog waa àdduna mooy nga xam la nga war a xam ba pare wéet di ko jëfe noonu loolu moom boo ko defee tëj nga àdduna ci kaso boo xam ne du génn mukk mukk ba mën laa lor waaye am na ngànnaay ca moom ba daane la mooy amma silaahu allazi bihi tubiidu fa huwa almuqa almuqaalatatu bi xayri mufiidin nee na àdduna ngànnaay arme bi mu la mën a songe ba daane la mooy di jaxasoo jaxasoo gu amul njariñ jaxasoo goo xam ne amul benn njariñ daal boo ko dee def yaa ngi jox àdduna arme boo xam ne ne ci la la mën a songee ba daane la ba yàqal la mu jàll ci saytaane mu ne wa sijnu saytaanin bila xilaafin sikru ilaahi almaanihil muhaafi seytaane nga xam ne ne mooy noon bi yàlla doole lool ci nit nga xam ne ni nit di ni dareeti nit di dawee ci yaramam te du ko yëg noonu la saytaane mën a dawee ci nit te du ko yëg mën laa génne ci lu baax léegi dugal la ci safaan nee na kasa bi nga ko mën a dugal ba du la lor mooy di bari tudd yàlla li baral di tudd yàlla ak di ko fàttaliku di fàttaliku yàlla ak di ko tudd lu baree bari loolu boo ko dee def jàppal na tëj nga seytaane te lu yàgg-yàgg du mën a génn foofa ba man laa lor mukk-mukk waaye moom it am na ngànnaay lu mu la mën a songee wala arme bu mu la mën a songee ba daaneel la moom seytaane te moom lay wax ne amma silaahu allazi yasawulu bihi muridin fa huwa al alxufuulu seytaane fi mu la mën a jaare ba daaneel la mooy sàggan ci yàlla ak fàttaliku ko saa yu jàmm bi sàgganee ci tudd yàlla ak fàttaliku rek may na jox na seytaane arme boo xam ne ne bu amul sens rek mën na koo daaneel wa sijnu lil hawa zukkootul xamma laysa lahu faidatu wa naxma bànneex moo ci des bànneex nag mooy bëgg loo xam ne ne amulu la njariñ nee na bi nga ko kase bi nga ko mën a tëj moom ba du la jariñ ba du la eh, yàqal ba du la lor mooy nopp ci jëpp wax joo xam ne amul njariñ wax joo xam ne amul benn njariñ nga noppi ci loolu boo ko defee rek tëj nga say eh, kasa boo xam ne du la mën a lor du la mën a gaañ waaye am lu la mën a songe ba yàq la moo tax mu ne amma silahuhu allasi bihi yasulu kalami fa kalaami fil fuduli nee na bànneex arme bi mu la mën a daanale la mën a Moy, nga beril waxi caaxaan sa yo yoo le waxi tiaxan fo toll waxi tiaxan rek xamal ne may nga sa may nga dole sa banex Moy jox nga ko arme bo xamne ne ci la la meuna songé ba la kon muy jangala mu leer a leer moo xam ne ne lenn lu rek señ bi wax na la ci meuna a waye nim la meuna songé te moy banex bi bakkan bi mbaxon ak adduna ak saytaani ak bànneex kenn ku ne mu ne nii nga ci mën a muccee waaye nii ne la mën a daane muy adduna mu ne la mu ne la bànneex mu ne bakkan ab xiif waaye saxoog regg adduna mu ne la beru di jëfe la nga xam-xam waaye safaanam it mooy jaxasoo nit ñi jaxasoo ko amul njariñ waaye saytaane mu ne la di tudd yàlla lu bari ak di ko fàttaliku waaye fi mu la mën a daaneel mooy sàggan di tudd yàlla waaye bànneexi baril wax baril ñuy wax yi amul njariñ waaye fi mu la mën a daane mooy baril waxi caaxaan rawatina lu aay mel ne rawatina lu wax ju aay mel ne bàkkaar wala dugg ci jàmbur yi di jëwag wala di wax lu la sa yoon wala loo xam ne ne bàkkaar nga cee jëlee rawatina loolu kon bunt boobu foofu la yam ci lim doon wax ci nit ki ni war a jihaad ak bakkanam ndax jihaad nee na mooy tax dana tax bu ëllëgee nga am ci àjjana waaye te ni ma ko waxee léegi rek boo bàyyee bakkan bi rek xëy na jihaad dana yàgg jihaad ak bakkan lu yàgg lay doon ndax ni su dund toll lay tollu te li ciy ëpp san li ciy man li ciy mën a njariñ sax mooy nga fexe ba ba mañ bañ laa gañee waaye bu la gañee boo amul san mu jëmee la sawara ndax xam lay yóbbu moom fam lay xëcc yóbbu moom fam lay woo di la fa jëmee du lu baax moo tax dana yàgg te dana metti waaye ni mu ko waxee léegi